te mu gën a sell gën a tedd te gën a matale te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di ñëw ak yéen ci seen émission bu bees bi di religion et société ad diinu wal xayaa muy lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu dundeenu doom aadama dañuy jël jéem koo méngale ak diine ngir waxtaane ko ak yéen kon nag émission bi kon day intéressé wu ci wàllu société ak ci wàllu diine euh, comme nag société lañ wax te société am na ay composants composants yi nga xam ne ñoo gën a essentiel nag te seq wàllu société bokk na ci jigéen moo tax tey suñ première numéro incha allah ñu fas yéene ko waxtaane ci wàllu jigéen waaye ñu gën a accenté wu nag ci wàllu néegu sëy mooy ban jigéen lañ war a tànn ngir mu nekk soxna ak yenn jigéen lañu war a moytu tamit ci ñu war a nekk soxna loolu yëpp incha allah danañ ko yaatal ci waxtaan bi mooy nekk kon suñu premier numéro ngeen ànd ak ci waxtaan bi seen mbokk seen xarit Mouhamadul Mounir Niang mu mel ni buñ sukkandikoo ci xadiisu Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu bi nga xam ne asmaa yu nettali na ko muy moytuloo nag juróom benn jigéen boo xoolee ci axadis yi am nañu ko def juróom-ñaar ba fukk sax waaye juróom benn yi mooy alxannaanatu wal annaanatu wal mannaana wal xaddaaqa wal baraaqa wa shaddaaqa xannaana bu ci nekk incha allah danañ ko leeral benn par benn bi ci njëkk mooy xannaana mooy jigéen boo xam ne dafa nostalgie nee booy takk jabar na moytu ku ni mel xannaana mooy jigéen goo xam ne fu mu toll rekk ma ngay fàttaliku dam doon dundee kër baayam neex-neex yam fa daan dund walla sama jëkkër ju njëkk ja nii la ma daan defal wala lii laa doon dund ci sama temps célibataire mel ni la mu am walla la mu fekk ci kër boroom këram loolu doyu ko ba saa su nekk rek moom ma ngay nostalgie di fàttaliku kon genre jigéen boobu nee na booy wut soxna nanga ko fi bàyyi jigéen gu ni mel walla koo xam ne sax boo koy labat toujours yaa ngi gis ci moom yooyu la jikko waaw moom daal dafa nostalgique kooku nee na kon matul soxna ndax boo ko takkee tamit doo am ci moom la nga bëgg ndax saa boo nekkee ci sa óolalaa oh rekk mën na koo naxal saa su nekk kon kooku nee na na ko fi bàyyi bu ñaareel bi mooy ka nga xam ne day jàmbat foko ko toll rek foko fek ma ngay binni ma ngay jambat ma ngay jambat di plaigner nena sa bu gisee jëkkëram nee day melni sax ci la ci la jambat yi di commencé akaza kon genre jigen bobu tamit ku jara moytu la Jigen go xamne bo wacce lam lay njëkk moy nangam jeexna wala nangam amu wala fu mu toll mi ngi naan la manqué naa nangam sama moroom yi am nañ nangam te aw ma ko du comprendre jëkkëram mukk effort bu jëkkëram di mën a def wala ka nga xam ne moo koy labat effort bu mu mën di def rek xeeb na ko ma ngay xool leneen moom daal dafa yor jikkooy giléem jikkooy giléem nga xam ne garab gu muy lekk rek ma ngay xool garab ga ko gën a kawe nee na genre jigéen boobu booy wut soxna nanga ko fi bàyyi ndax kooku boo ko takkee du la sëyal ndax loola mu la wan ca labat gi loolu mooy continuer boo sëyee ak moom doo am jaamu mukk fu mu toll rek mu ngi jàmbat te jàmbat gu bari nag kooku day yàq maanaam jàmm ji nga xam ne naroon naa am ci néegu sëy ndax kuy jàmbat ku nekk bàyyi nga fi muñ te muñ dafa nekk jikko boo xam ne bu ñu soxla ci jigéen la boo xam ne bu koy taaral la boo xam ne bu yokk valeuram la rawatina ci biir néegu sëyam hakaza sa jëkkër lu mu mën di am donte mën na am àdduna li ci biiram am na lu mu manqué loola mu manqué nag yow jigéen yaa ko ko mën a muñal te muñ gi nag muñ àndul ak njàmbat dangay dégg olof naan boolu muñukaay bu fees muñ nag amul àpp kon boolu muñukaay warul a fees waaw muñ xajul ci bool ba di ko fees hakaza kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci soxna euh, soo xam ne kon fekk nga ci moom muña di googule ak njàmbat yu bari yooyule kon kooku mën nga ko fee bàyyi nga seeti keneen ku ñetteel ki mooy ki nga xam ne lañuy tuddee mën naa na hakaza mooy koo xam ne toujours mi ngi mébét ay mébétam du jeex mukk ay bu ma amoon nangam ay bu ñu amoon kër place sàngam ay bu ma amoon li diw am moom de jëkkëram nangam la koy defal ak nangam ay bu ma amoon jëkkër ju mel noonu hakaza koo xam ne fu mu toll mi ngi mébét ay mébétam du jeex ci olof mooy koo xam ne dafa séeneen koo xam ne dafa ñàkk doylu ndax doylu dafa nekk jikko boo xam ne bu ñu taamu la ci jigéen ci góor ak jigéen ñëpp waaye rawatina nag ci jigéen hakaza moom mi nga xam ne toujours bu nekkee xasee nekk ci buum dañ koy limité koo xam ne dañ la limité nag boo doyluwul su boobaa kooku musiba lay doon ci yow musiba lay doon ci ka nga xam ne moom nga nekkal kon jigéen gi nga xam ne fu mu toll mi ngi mébét lu mu am doyu ko ma ngay seet leneen di yootu leneen lu mu gis ci moroomu jigéenam yi rek bëgg na ko kooku tamit nee na booy takk soxna wala booy tànn soxna jigéen gu ni mel nanga ko fi bàyyi ki ci topp mooy ki ñuy tuddee alxaddaqa yàlla na ci yàlla musal mooy jigéen goo xam ne moom dafa mën a xoole moom toujours rek ma nga xool ma ngay xool loo xam ne amu ko boo demee ànd ak moom ci place sax ma ngay xool place ba rafetaayam ma ngay xool sañse moroomam ya loo xam ne amu ko toujours ma ngi koy xool ba te xool googu mu koy xool mën na jur lan ñeetaane te ñeetaane di jikko boo xam ne dañ koo ŋàññi ci sharia ndax mooy indi kiñaan jigéen goo xam ne day xool lu ne mu xool ci tartaaru àdduna ak ay bànneexam nee na kooku nanga ko moytu ndax day indi xool boo xam ne du toog xol boo xam ne du féex xol boo xam ne fu mu toll mi nga xat du am jàmm ndax lu mu xool lu nekk rek bëgg na ko moo tax jigéen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñuy dajalee ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu di leen teral di leen jox ay teraanga àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa na leen bu fekkee loolu ngeen bëgg fa taalayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila ñëw leen ma jox leen li ngeen bëgg te bàyyi leen ngeen dem waaw bu fekkee nag yàlla ngeen bëgg nag ñëw leen ñu ànd dem ci yàlla hakaza kon jigéen la war a nekk mébétam ci sëy mooy jaamu yàlla am ca yàlla lu ko fa fekk rek muy loolu waaye bu mu nekk rek ngir taar-taaru àdduna ak ay bànneexam ak ay loo xam ne euh, fii rek la yem ci àdduna bi donte nag dund bi pour ñun la ndax wala tansa nasibaka mina dunya bul fàtte sa cër ci àdduna loo dund dund yàlla nang ci boole sa àdduna ndax yàlla moo indi ci àdduna ndax dund googu ngay dund yàlla du nekk dara lu dul barkeel sa dund àdduna waye kon it bul faté sa bop ci aduna bul faté ne war nga dund nit nga danga nga wara dund waye nak na ko na na ca doylu am niki non tamit nang ko wuté tamit ci façon bo xamné ne la yalla santane moy jikko yu rafet ci lo xamné ne tamit boko amé dana barkel kon loolu lu mata baye xel la euh, bi ci top moy ko xamné ne euh, barraqala moy jigen go xamné dañ koy tuddee jigéen ji yor koo xam ne loolu gaaf la ci jigéen koo xam ne bëtu seytaane la yor day xool borom këram bët yoo xam ne daf koy tiital am na jigéen ñoo xam ne buñ la xoolee rek nga tiit waaw ndax seen bët yee na mu mel ak façon ba ñuy xoolee da wóor ne ñii moom ay jigéenu fexekat lañ wala jigéenu seytaane nga xam ne seen bët yi rek am na lu muy wax nee na jigéen gu ni mel nee na booy wut soxna na ko fi na ko fi bàyyi. bu ci topp mooy as shaddaqa shaddaqa mooy koo xam ne jigéen gu bari wax koo xam ne fu mu toll mi ngi wax débat bu jeex mu dugg ci beneen dana wax luñ ko laaj dana wax luñ ko laajul te nee nañ mën a fen nag mi ngi commencé ci wax loo xam ne kenn laaju la ko waaw jigéen joo xam ne luñ ko laaj mu wax luñ ko laajul mu wax xamal ne boo ko takkee rek xamal ne sa sutura dana xaweeku ndax du la suturaal dana xawi sa sutura hakaza ndax wax moom bu baree rek génne azaka nee na kon jigéen goo gis mu bari wax booy takk nanga ko fi moytu ndax bari wax euh, gaaf la ci jigéen jigéen daal lañ ca taamu mooy mu néewi wax gàtt tànk gàtt làmmiñ olof dana koy faral di wax waaw hakaza kon kooku taar la ci jigéen loo xam ne lu ñu taamu la ci moom jigéen goo xam ne buy wax sax il faut nga dëpp sa nopp ci euh, gémmiñam soog a dégg li muy wax kooku taar la ci jigéen waye ko xamne foto foo toll yaa ngi mi ngi wax di Natali, euh, lu ñor mu wax lu ñorul mu wax neena koku tamit nang ko fi moytu koku lañuy tuddé kon shaddaqa bi ci top moy kon juróom ben yoyu la hadith bi wax da nañ ci yokk jigen go xamne tamit amul kers dafa ñàkk kers jigen bu ñàkk kers mom euh na nang ko fi baye ndax mo gëna graw woor gu kers ndax yonent bi sallallahu alayhi wax na ne danaa wax loo xam ne yonent yi ma jiitu woon yépp waxoon nañ ko te mooy iza lam fas fasna ma tax nga xam ne day dalay day avertir sa nit ki ngir mu am kersa mu ne koo xam ne dem na ba amatul kersa moom lu ko neex def waaw kooku ci góor ak ci jigéen rawatina nag ci jigéen kon jigéen gu ñàkk kersa moom moytul rek boo gisee ca ngoro ga daal ngay ngoro jigéen nga gis ne dafa ñàkk kersa kooku moom nekk na ci màndarga yi nga xam ne deesu ko sooxaale deesu ko lan nëpp nëppal kooku moom na nga ko fa bàyyi rek seeti keneen moo gën ndax ñàkk kersa dafa nekk jikko boo xam ne bu yéeme la bu doy la waaw koo xam ne rusul dara rusul la wax dara rusul la def dara kooku moom boo ko takkee musiba rek la lay jural musiba la lay jural ci yow ci sa wàllu bopp musiba la lay jural ci sa wàllu famille beneen bi mooy boo xam ne boros nañ ko ci biir waxtaan bi muy wàllu doylu jigéen gu doylu nga xam ne doylu kanzun laa yëf naa la mooy magasin boo xam ne du jeex nee na kon kooku taar la ci jigéen goo xam ne euh, yow bëgg nga ko takk yow mi nga xam ne bëgg nga am njaboot gu barkeel kon loolu dafa nekk ay jikko yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la ci ki nga xam ne dafa bëgg takk soxna mu bàyyi xel ci façon jikko yooyu ndax olof day faral di wax ne lu nuyoo ca sëy rekk Euh, lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ci ngoro ga mais dañ koo fayul lu feeñ ci sëy lu nekk nuyoo woon na ci ngoro ga mais dañ koo fayul kon kooku booy ngoro ñi nga xam ne ay célibataire lañ comme ñoom Samba si bu ñuy ngoro war nañ bàyyi xel ci yu mel nga xam ne boo ci gis rek mu signalé wu war nga ko war nga xam naka ngay doxalee euh, ba ba doo ànd ak moom ci biir sëy ba lu mat a bàyyi xel ndax jigéen moom mooy baladu tayyib wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni bi jigéen ju baax mooy baykat bi nga xam ne day bay dana sees suuf su baax mu wóor ko ne fii bu fi jiyee lam ji dana sax te dana nangu te dana naat dana meññ mu daal di fay def aw jiwoom nga xam ne dana ci am yaakaar waaye bu fekkee jigéen ju bonit mooy suuf soo xam ne bo fa jiyee du nangu wala bu nangoo tamit du am qualité du bax kon koku lu mata baye xel la ci kep ko xam da ngay tak soxna nga xalaat ne say dom ngay tanal yaay te bés bu ñu màggee danañ xam façon yaay bi nga len tanal ben nak ñu gëreem wala ñu xarab bu fekkee sonu nga ci rek ci tar nga jikko donte tar amna solo trop waye jikko tamit amna solo liñ naan beauté intérieure moo ëpp solo beauté extérieure sa kon kooku lu mat a bàyyi xel la jigéen koo xam ne saa boo ko xoolee sa xol sedd waaye saa bu jëfee tamit sa xol gën a seddati kooku bénéfice la muy lu mat lu mat a bàyyi xel euh, kon kooku daal loolu mooy li nga xam ne moom lañ doon euh, lay taayale seen émission bii di diine ak société euh, kon sàmba si bu fekkee rek mën nañu continuer ci ak ànd ak suñ mbokk yi nga xam ne mooy suñ mbokk internet di ñu suivre ci Safina TV mooy émission boo xam ne émission bi day wax ci wàllu diine ak société maanaam di méngale diine ak jamono moo taxoon ñu ubbeeku ci ki nga xam ne moo seq société euh, moo yor société te mooy jigéen al umu madrasa euh, yaay école la jigéen ñi buñ baaxee buñ rafetalee tànnin ni ñuy tànnee soxna rek su boobaa société bi dana baax dana jaar yoon waaye bu fekkee dañoo nekk ci jamono boo xam ne lu neex waay def léegi média yi wala boog euh, télé yi façon série yi ñuy teg wala façon ba nga xam ne ña ngi koy doxalee ca ña nga xam ne ñooy génn ci télé yi ci wàllu col ci wàllu waxin rawatina jigéen ñi bu fekkee joxewuñ ca benn exemple su boobaa société boobu war nañoo tiit euh, ku tiitulit war nañoo tiit ndax day wane kon suñu mustaqbal suñu futur naka naka lay mel te loolu lu mat a lu mat bàyyi xel la euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax naan jigéen danañ ko takk ci jikko yi benn nga takk ko ngir taaram wara ngir aralam walla ngir famille ba mu bokk walla euh, ngir diineem waye nak ma ngi lay borom diine ah jigen jo xamne dang ko koo ngir tar kese tar day jeex man na sax am nat wala ndogal bu ko dar rek tar ba daal di fay yem wala bu magete aussi mu jeex su fekke tar nga ko beugé mom koku du duré ndax tar mom day jeex neena tamit dañ ko tak ngir alal bu fekke dang koo tak ngir alal koku su boba ngir yalla taxul ndax bes bo ci amé la nga bëgg ci alal ja man nga ko abandonné man nga ko bayyi kon koku saxul te kep ku tak jigen ngir alal nak koku doo dañ ci ñak ci ñàkk am na beneen bu ko wax niki noonu neen dañ tak jigen ngir fami bu mu bok dama ko tak ngir ci yah bu reey la bok ci fami sangam la bok koku tamit su boba lolu mbeugel nekku fa xemem tef mo fa nekk ak loo xam ne mbëggeel goo xam ne maanaam fondation ba dëgërul fa mu basé wu tamit kooku nekkul lu dëgër kon bés mën na ñëw it aussi nga bàyyi ko bu fekkee da nga ko takk aussi tamit ngir diine nga xam ne moom la la dénk boobu moom day sax ndax kooku la ñuy wax mbëggeel goo xam ne dafa original nga xam ne dafa tegu ci fondation bu dëgër nga xam ne diine moom toujours ma nga fa te mooy li nga xam ne mooy defar àdduna ndax jikko yu rafet yam ya mu lay wan moo lay attiré ci moom ba saa su nekk même boo gisee lu na lu la naqari ci moom sax jikko yu rafet yooyu moo la moo la fay téye kon bu ñuy tànn soxna dañuy sooraale tamit diine ji am na ci solo lool lool macha allah kooku lu mat a lu mat a bàyyi xel la euh, mbirum soxna nag dafa nekk loo xam ne lu lu mat a bàyyi xel la ndax bokk na ci loo xam ne day mottali diine day mottali tamit dund day tax maanaam nit ki xam ban mission la am ci dund bi nekk responsable xam lan moo ko war ak lan moo ko warul hakaza kon kooku mat na bàyyi xel lool balaa nga ciy dugg nga xam naka nga ciy duggee ak ci kan ngay dugg waaw kon lu mat a bàyyi xel la buñ ko négligé rek du du du baax góor daal balaa ngay mat góor dëgg jigéen nit balaa ngay mat jigéen dëgg il faut nga dugg ci néegu sëy fan ngay dugg nag war nga ko xol bu baax xol ko set ko setantal ko ndax alquran bari na ay aaya yo xamne ñëw na ci muy wax ci ñaari way dencante naka lañu wara nekké nekkee bi sallallahu alayhi wasallam sonu tamit ci tanal ñu soxna su baax nga xamne tamit jigen ay faratam pour mu mat il faut mu am borom kër amum borom kër ak matal ay faratam rek ko dugal nako aljanna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne iza sallatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها wa فرجها وأطاعت زوجها دخل الجنة أو كما قال mu ne jigéen bu fekkee mi ngi julli ay faratam di woor weeru kooram niki noonu di nyongal euh, euh, payam maanaam téye boppam topu jëkkëram kooku nee na bu dee dugg aljanna loolu rek kon dugal na jigéen aljanna kon muy lumata lu mata lu mata gaam gaam dal ak taluk mën a topp sa boroom nim la ko waxee il faut tamit nga am jëkkër joo xam ne jëkkër ju la may jàmm la jëkkër joo xam ne tamit ju am jikko yu rafet la ju am diine la muy lu mat a bàyyi xel alal ji am na ci solo waaye tamit diine ji moo ëpp solo ndax mooy des waaw ah, jigéen ñi nag koo wax mu ne góor gu am diine laa bëgg waaye góor yi am diine yi duñu fi jeex nag waaye euh, xëy na ña koy wax ñu ci bari xëy na ci làmmiñ bi leem mais eggul ci xol boo amee diina te amoo ab dërëm aussi du ñu dugg ci yow waaye nag diina ji moo gën a am solo kon loolu suñu mbokk jigéen ñi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax kon euh, daal lii moo nekkoon kon suñu numéro bu njëkk sàmb si ci suñu waxtaan diine ak euh, jamono religion et société incha allah ñu leen di dig daje ci yeneen i waxtaan yu gën a am solo incha allah سين بوك سين خالد محمد المنير نانجين تجون أندل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته